wa ala alihi wa ashaabihi altayibiin altahirin wa man ittabaahum bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw nuyoo bi ñu ngi leen di ziyaara ci bis bu tàdd bi di jiital ci ziyaar bi kilifa gu tàdd gi alxalifat al akram cheikh muhammadan al muntaqa ñaan yàlla sàmm ko aar ko dëgëral ko yeggale mboolem ay naalam ak yéeneem ci diine ji ak yoon wi ak njaboot gi taalibe yi ak jullit yépp eh, te lépp ñu ànd koog moom te nam gën a te sunu boroom saxal nu ci diine ci ragal yàlla ci farlu ci góorgóorlu te may nu mujj rafet gannaaw loolu suñ waxtaanu tey ñu ngi jëm ci sàmm war may diine ci biir waxtaan wi dañ jéem a seet xam lan mooy war may diine xam nuñ koy jéem a seet nuñ koy sàmme sàmm googu bu amee lu mu jural ku ko def xotti war maam lu muy jural ku ko def ak jamono ji ñu toll ni ñuy xottee war may diine ak taxawaay bi nga xam ne moo nu ci war kenn ku nekk ci nun war may diine mooy lépp lu yàlla màggal fonk ko réyal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sellam fonk ko màggal ko réyal ko ñu wax ko ci alquranul karim mu ñëw ci sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leeral ko boroom xam-xam yi jottali ko nit ñu baax ñi sax ci di ko jëfe loolu kon mooy war may diine muy doon kon lu yaatoo yaatu la ci jëkk kon mooy jëmmi sunu boroom subhaanahu wa taala ndax lépp lu ñuy màggal ak di ko wormaal ci biir màggal yàlla lay dugg ci ragal ko lay dugg ci topp ko lay dugg ci ci ragal ko lay dugg kon jëmmi sunu boroom subhaanahu wa taala moom mooy war may war may ndax war may ci yëpp ci biir war maam lay dugg kon jëmmi sunu boroom lu ñu war a màggal la lu ñu war a warmaal la lépp lu sunu boroom màggal it ab yonentam bi gën ci bindeef yëpp te jiitu ci yonent yëpp gën ci ñoom gën leen ñoom ñëpp mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem yonent yàlla yëpp ci war may diine lañ bokk téere yàlla bi mu wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di ko jàng loolu itam ci war may diine la bokk malaaka yi yàlla yi ci war may yàlla yi lañ bokk ay ndax ay xajam lañ di ay di doon ay ay ay ay ay ay soldaaram saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i bokkam ñoom itam ci biir war may diine lañu dugg nit yàlla yépp yi dugg yi si nga xam ne ñooy nit yàlla yi jege sunu boroom mu xejjal leen cëral leen ja jox ay jagle ci war may yàlla yi lañu bokk ñi gëm sunu boroom ñépp di ay jullit ci war may yàlla yi bokk li yàlla digle lépp ñu muy lu ñu war a def war may yàlla la yi muy tere yépp ay war maam lañ barab yi mu màggal barab yi nga xam ne yépp barab yu sell lañ suñu boroom màggal ko ci war may yàlla la bokk niki Màkka ak Kaaba ga barab ya fa nekk yépp ñu leen ñu fay dem ci waxtu aj ak omra ak madinatul munawwara ak jàkka ju tedd jooje ak dëkk bi yépp rawatina nag barab bu sell ba nga xam ne mooy barab ba ñu koy siyaaree moom ku tedd ka sallallahu alayhi wa sallam te boroom xam-xam yi wax ne mooy barab bi gën a sell ci kaw suuf pàkk bi gën a sell ci kaw suuf ak sax am ñu wax ne ak ci asamaan mooy barab boobee mu tëdd sallallahu alayhi wa loolu kon ci war may yàlla yi la bokkoon barab yooyu barab yu sell yi ni ki baytul maqdis al masjidul aqsa eh, ak barab yu sell yi fa nekk yëpp ci war may yàlla lañ bokk béréb bu sell bii ñu nekk muy dëkk bu tedd bii ñu nekk ak barab bu sell bii ñu teew ci jamono jii ñuy waxe ak barab bu tedd kii ñu dàndal radiallahu taala anhu euh, ak dëkk bi yépp ak fépp foo xam ne boroom dëkk bi mas na faa jaar ba mas faa sax ab diir yooyu yépp ci war maam ci war may yàlla yi la bokk lépp lu aju ci mbiram muy mbindam muy ñu bokk ci moom ba ci ay taalibeem ñoo ñëpp ci war may yàlla yi lañu bokk Eh, jamono yi nga xam yépp ay jamono yu ñu màggal la lu mel ni weeru koor laylatul qadr guddi gàmmu ñeenti weer yi gën a tedd ci at mi te yi yu ñu nekk ci la bokk weeru rajab muy ndeyi koor ak weeru diggiw tabaski ak weeru tabaski ci boppam ak weeru tam xarit mu ñeenti weer yooyu nga xam ne moom la ñu tuddee weer yi ñu wormaal yooyu yëpp itam ci may diine yi la bokk kon wormay diine dafa yaatu lool lool lool daanaka fu nit yëngoo rek di bëgg a dal ci may diine te war may diine kon dañ ko war a màggal dañ ko war a fonk war ko wormaal màggal may diine nag màggal mooy nga yëg màggaayu li ngay màggal nga yëg màggaay bi ci sab xol nga yëg ne lii lu màgg la waa nga màggal ko ci sab rëyal ko ci sab xol sopp ko fonk ko rëyaay boobu nga yëg ci sa xol ak fonkeel gi ak màggal gi nga di ko feeñal ci say wax di ko feeñal ci say jëf di ko feeñal itam ci say melokaan Euh, lépp lu màggal ga laaj ci melokaan wala ay jëf wala ay wax nga di ko def lépp lu safaanoog màggal ga nga di ko moytu kon loolu mooy màggal war may diine sunu boroom kon subhaanahu wa moo jëkk ci war may diine te lu ñuy màggal lu ne ci biiru màggalam lay dugg kon yàlla ku ñu war màggal la ku war a jaamu la ku war a jaamu la moom yëmuñ ci diñu am ci màggal waaye ma jaamu dañ koy jaamu jaamu mooy toroxlu gu mat sëkk goo xam ne da ngay bàyyiliku uh, lu ba kem fa kem kàttanu yam di topp lépp lu muy digle ci kem kàttan di bàyyi lépp lu muy tere di ko ragal uh, di ko rus di ko sop ñu bari nag dañuy dañuy xotti war may sunu boroom di ko lor am na ci alquran fu ñuy wax inna alladina yuzuuna allaha wa na laanahum allah fi dunia wal axirati wa aadda lahum azaban azima nee na ñi nga xam dañuy lor yàlla ñii lor yàlla akub yonentam yàlla rëbb na leen mooy solil na leen yërmandeem ci àdduna ak alaxira te itam mu ngi leen waajalal mbugal mu màgg boroom xam-xam yi eh, nee nañu li waral aay bii wàcc mooy ñi ne ñu wax ne ñii lor yàlla ñu waxee lor yàlla yàlla kenn mënta yàgg ci moom di ko def luy metti kenn mënu ko mettital kenn mënu ko wàññi kenn mënu ko suufeel kenn mënu dara ci moom kon bu ñu ne lor yàlla du luy lu ñuy def luy lor lu koy luy jeexital ci jëmmam subhaanahu wa waaye bu ñu waxee lor yàlla mooy def lu safaanoog ak màggam def lu méngawut ak màggam méngawut ak euh, dayoom loolu mooy lor yàlla kon mooy ne mi ngi wàcc ñi nga xam ne dañuy defar ay jëmm ko nirale lu yàlla bind tabax luy niru nit wala luy niru ak garab mbaa luy niru loo xam ne daal ci li yàlla bind ñu koy gis nga xam ne lii xam ne ni moom yàllaa ko def keneen def ko képp kuy toppandoo yàlla di ko roy di nataal di nataal lu mel ni la mu la mu la mu sàkk nee na ñooñee euh, la yàlla jublu ci ne ñi nga xam ñoo koy lor wala boog ñoo ca jiitu ndax ñooña dañuy dañu koy reetaan dañu mel ni ku koy reetaan mooy li muy def ñu koy jéem a toppandoo mel ni ñu koy wan ne ko ñoo eh, ñoo yow yam loo man mën nañ ko di wàcc di jéem a jox seen bopp wàccuwaay buy niru wàccuwaayu yàlla subhanahu wa taala kon ñoo ñu ngi xotti war may yàlla ñu ngi koy ñu ngi koy lor dikk na ci xadis boo xam ne Buxaari nattali na ko ak Tirmisi ak ñu dul ñoom ci xadis dikk na ci xadis qudsi mu wax na mooy xadis loo xam ne xadis la waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko nettali waaye yàllaa ko wax te du alquran mu ne zin ibnu adam yasubbu dahra wa ana dahr bi yadil amr uqallibu layla wa nahaar ne doomu aadama yi dañ may lor fu ñu toll dañ may lor ndax fu ñu toll ñi ngi ŋàññi jamono ñi ngi xas jamono jamono ji dafa lii jamono ji dafa laa dafa lu bon lu nañu ko yàq jamono te nee na man maay jamono ndax mbir yépp ci sama loxo la nekk maay wëlbati guddeeg bëccëg maanaam lu fi xew mana lu am maa ko def kon lu waay wax ci lu xew rek daa mel ni man la koy wax man mi koy def euh, kon loolu day wane ne kon yàlla dañoo war a nangu ay dogalam di gërëmloo ay jëfam euh, te bañ di ko ay ak a gàkkal euh, kon loolu bokk na ci lépp loo xam ne nag lu yàlla màggal la ba am wormaal ko képp ku def sa lu safaanu màggal gaa wormaal ga kooka ma ngay yàlla ma ngay yàlla euh, dikk na ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa mu wax ne allah allah asxaabi man ahabbahum fa fi mahabbati fa bi mahabbati ahabbahum wa man abgadahum fa bi mahabbati abgadahum wa man aazahum faqad aazaani wa man aazaani faqad aaza allah wa man aaza allaha yusiku an yaxuda nee na ragal leen yàlla ragal leen yàlla ci sama gaañi sama ànd nooy ñi ma àndal njëkk ma ñu gëm ma ànd bokk ak man jamono gëm ma ànd ak man di jihaar ci yoonu yàlla di yëkkati diine euh, sopp ma lool lu ñu daj ci diine di jaamu yàlla ragal leen yàlla ci ñooñu ndax ñu amoor ma lañ ku leen wax ku leen lor mooy ku ku ku wax lu ab safaan ci ñoom ci man nga ko wax te ku wax ci manul safaan ci yàlla nga ko wax te ku wax ab safaan ci yàlla nag mbugalum yàlla jege na ko lool ah, kon loolu day wane ne lépp lu yàlla màggal rek ku ko ku def lu wuuteeg màggal ga ma ngay lor yàlla lor yonent bi sallallahu alayhi mooy moom it eh, def lu wuuteeg màggal maam aaya bi ñu jàng léegi nga xam ne def ne ku lor yàlla ak yonentam lor yàlla wax nañ ne wax nañ foofu li borom xam-xam yi wax ne moom nañ ci jublu ci aaya bi te mooy ñiy toppandoo yàlla di def di jéem a def li muy def waaye bu dee yonent bi sallallahu alayhi am na ñu wax ne li tax dëgg-dëgg ñu wax lii ci aaya bi mooy dafa am soxna sumu dencoon ku ñuy wax safiya bintu xuyay ibnu axtab ci xareb xaybar euh, am ñoo xam ne dañ caa nekkoon di ca wax naka sul noona ab safaan ci ci jëf jooju euh, kon loolu day tegtale ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ñu war a wormal la ku ñu war a màggal la ak lépp lu tax ci moom ci ay bokk ak i àndandoo euh, ak aw ak ak koo xam ku ko gëm la ak ku ko topp kon màggal lépp lu yàlla màggal la nga màggal ko bu dee màggal yàlla bokk na ci topp ay ndigalam lu mu diglee nga di ko def bu defee diglee dara suñ ko moyee kooku kii mooy yàlla màggalut yàlla bu teree dañ ko war a bàyyi ku def lu yàlla yi tere màggalut màggalut yàlla ku wormaalut jëmm ji yàlla wormaal yàlla ku ku téere bi yàlla ku ko màggalut kooku wormaalut màggalut yàlla ku wormaalut béréb yu sell yi ak ak jamono yu sell yi itam wormaalut yàlla kon daal mooy màggal jëmmi yàlla ji ak lépp loo xam ne yàlla màggal na ko nga màggal ko mooy ngay ngay yëg ak màgg màggug loola ci sa xol euh, jox ko worma sopp ko di jëf nag luy dëppoog yëg-yëg boobu di ko wax itam di ko melowoo kon loolu mooy màggal war may diine war may diine kon lu ñu war a màggal la loo xam ne képp ku ko def danga ci am yiwu ëllëg tuyaabay ëllëg ju rëy rëy rëy dalik wa man yuazim xurumati llahi fa huwa xayrun lahu rabbi mu ne li yàlla digle jëf yi mu digle ci aj ak umra ak i tabaski yooye koo xam ne màggal na ko maanaam fonk na jëf ya fonkeel ga ca war defe ko nañ ko santaane lañ cey tere lépp mu war ma mu moytu ko barab yi sell yañ koy defee mu màggal barab yi warmaal ko kookee dana am yiwu bare bare bari muñ koy dencal ëllëg naka noonu nag lépp lu mu defat itam ci lu xeet ci màggal lu yàlla màggal yiwu baree baree bari la cay ame te màggal lu yàlla màggal des na ca màggee warmaal koy des na la ca warmaale kon loolu kon màggal lu yàlla màggal dana tax màgg dana taxa am itam worma waaye màggalu yàlla màggal dana taxa mucc dana tax mucc ca mbugal ma nga xam ne euh, ku xotti wormay diine ak xotti wormay lu yàlla màggal la ca war a dal nit ki wormaal moom dana ci mucc

صل على محمد su dul laa ilaaha illallaah su dul laa ilaaha illallaah رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح wormaal xotti wormay diine nag yàlla na ci àll musal moom ci aay biñ jàng ci njëlbéenu waxtaan wi leeral na li muy jural ki koy def te mooy rëbbum yàlla ak mbugalum ak mbugal mu mag mu mag a mag muy dal ki nga xam ne moo koy def kon kuy ku ku xotti may diine di yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam euh, kooke ma ngay jëme boppam ci alkande euh, dana waral kon yàlla rëbb ko mooy yàlla solil ko yërmandeem ci àdduna ak ci alaaxira danga taxit mu teg ko mbugal mu rëy rëy loolu nag kon lépp lu dal nit ci musiba ak ci aki balaa ki nattu ci àdduna euh, kii def loolu na jàpp na ci loolu la man bokk na ci mbugalam waaye la koy nekk ëllëg nag loolaa gën a tar kon lu lu lu mata moytu la buñ seetloo nag ci suñu jamono jii ci suñu réew mi ñu nekk ak ci àdduna sépp lii ñuy waxtaane xotti war may diine ak lor yàlla ak yonentam ak ki ñoñam yaatu na lool ba nit ñi te nit ñi sax teguñ ko fenn defuñ ko muy dara dañuy gis ñoo xam ne dañuy jàll dañuy wax ci jëmmi yàlla ci boppam subhaanahu wa taala lu yellut di ŋàññi jamono di jàmbat fu ñu toll ak wax ak xarab fu ñu toll dañuy jalgate ndigali yàlla yi gën a rëy di ko jalgate di ko bàyyi di ca bàyyi yu rëy rëy te duñ te duñu di ko weefal di def ay tereem yu mag di ko fésal te duñ ci am kersa duñ ci am ak ragal loolu di xotti woon may diine yoo xam ne foo xool gis lu ñuy mel daanaka muy lu yaatu lool ci barab yu baree bari dem bay wëlbati tëral yi ni diine li yàlla digle yonente bi yónni yonente bi sallallahu mu jàngale ko lii nii lañ koy defee ñu gis ñoo xam ñoom dañ koy wëlbati ñoom dëppale ko nam leen neexe di jullee nam leen neexe baa ñuy def yeneen i jëf nam leen neexe nu bokkut ak na ko yàlla digle di dugal ay yëf yoo xam ne xamee su ko woon ci diine ñu di ko dugal ci diine di ko ci boole di ko ci di ko ci di ko ci di ko limaale mooy di jalgate tëral yi nu diine di ko jalgate gis koo xam ne bu ko neexee day dem ci barabam ne ak def lu mu tudde ak kaabaam di ko wër baa muy def leen yu ko yeneen yu ko soob yoo xam ne rek nam ko soobee la koy defee nag ko bakkanam digal ak bànneexam noonu la koy defee te du ci ragal dara te mbooloo dañ ko ciy topp e, mu nekk ca mel ni lum sañ la lu nekk ci lu dëppoog yoon la gis ñuy wax ci téereb yàlla bi ak a jëf lu juunoo juunu te safaanoo e, te mel ni loola daf leen di jig loola da leen di dara du leen ca fekk gis ñoo xam ne dañuy wax ci nit yàlla yi ay wax yu juunu tàmbalee ko ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko wax ci ay tele di di gaaral ak ayibal ay saxaaba ay ay jëmm yoo xam ne àndoon nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko topp ko ñuy wax ci ñoom astafaan di ko wax ca kaw di ko wax ci ci ci ci ay tele ak i ndaje ak di wax lu safaanu ci nit yàlla yi ak di ko di ko di ko di ko jalgate yooyu yëpp ñu koy def tam ni ñu koy def ah, am nañ ci fit wu rëy ndax jàpp nañ ne dara du leen ca fekk am ñuy jalgate barab yu sell yi ak di jalgate boo yu sell yi jamono yu war a wormaal ñu ciy def ab safaan bokk na ci jamono yooyu weer wu ñu nekk kon yooyu moom yaatu na lool ci jamono te ñi koy def day mel ni am nañ ci dëgër bopp ak fit wu rëy ndax dafa mel ni euh, amut lu leen di artu ak lu leen di jàjj loolu nag lu mat bàyyiwaat xel la xalaataat ci seetaat fii ci réew mi ñu nekk xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adaful iman am na ci beneen riwaaya wa laysa min warai zalika misqaalu xabati xardalin min iman muy ku ku safaan na ko dindi ci loxoom su ko mënul na ko dindi ci làmmiñam su ko mënul na ko naqarlu te bañ caa bokk koo xam ne nag moom ab safaan bu ko yégee du ko naqarlu nee na moom lu toll ni fépp bu baamat nekkul ci xolam ci ngëm boroom xam-xam yi ne na ko dindi ci loxoom loolu euh, buur moo ko moom buur ki yor doole yi jullit yi buur lañ ne moo moom dindi ci loxo moom googu kàttan dindi ci làmmiñ ne mooy kilifay diine yi ak boroom xam-xam yi ñi ci des nag li ñu man mooy naqar lu mbir te bañ caa bokk fii nag mu mel ni dooley réew mi ñoom liñ jàpp ni moom lañu war a aar diine bokk ci yàlla war ma yàlla bokk ci liñ war a aar war ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci liñ war a aar war may alquran bokku ci li ñu war aar war may nit ñu baax ñiit ak barab yu sell yi bokku ci li ñu war a aar war may diine maanaam li yàllay digle bu ñu ko dee jalgate waruñ ko waruñ caa wax lu mu tere bu ñu ko dee def di ko fësalit waruñ caa wax ndax jàpp nañu charte yi ñu bind mu tënk réew mi loolu bokk ci yàlla bokk ci yonent bokk ci alquran bokk ci nit ñu baax ñu bokk ci war may diine bokk ci ba tax na jàppewuñ ko ak tooñ goo xam ne ku ko def dooley réew mi war a dal ci sa kaw loolu jàppuñu ko te am na loo xam ne dooley réew rek moo ko mën a moo moo ko mën a artu moo ko mën a fekk euh, ñu jàpp na li ñu war a aar daal mooy jëmmi charte yi ñu bind charte réew ma lañ bind ne mooy charte réew mi daal loolu lañu ñu war a aar ak bakkani doomu aadama yi ak seeni alal ak jëmm yañ jàpp ne e, sart réew mi aar na leen loolu nag ci ci nii mu tëdde nii nii war nañoo xalaat ne réew mi dafa nit ñi dañoo gëm diine gëm yàlla gëm yonente bi sallallahu alayhi gëm alquran gëm nit ñu baax ni gëm di ndigal yàlla yi ak i tereem am ci ñooñ jaaral leen seen bakkan ak seen alal ak seen lépp léegi nag bu fekkee ne ñi ñi war a artu ak war a aar defuñu ñu gëm ñëpp bu seen xol yëngoo mën nañoo jéem a fajal seen bopp te mbooloo mu jóg di fajal seen bopp fitna lay la jur fitna lay indi mbooloo mu gis lu leen naqari ngir dañoo jam dañoo wax ci yàlla dañoo jalgati war may yàlla wala war may yonent bi wala war may alxuraan sallallahu alayhi wa sallam wala war may alxuraan nit ñu baax ñi loola yëngal seeni xol ñu jóg àndandoo ne dañ koy faj loola fitna lay jur te fitna moom bu juddoo kaaraangeeg bakkan nekkatu fa kaaraangeeg alal nekkatu fa kon bu ñu ko aarul ngir turu diine it di aar bokk ngir tur bakkan yeeg alal yi mat na ko kon daal lii moom lu mat a xel la ñu ngi tënk fi kàddu gi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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

محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الفلاح أهل طاعته لأسباب رضاه واستعمل جوارحهم وبواطنهم فيما يحبه ويرضاه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أصحابه الحافظين ما أمرهم به من العزائم أما بعد فيا عباد الله في بعض الأحاديث أن في الجنة نهرا يسمى رجبا باسم سهركم هذا ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن ومن صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر فاتقوا الله عباد الله وأكثروا في هذا الشهر من الصدقة والصيام وتزودوا بالخيرات والصلاة بالليل والناس نيام وانتهزوا فرصة العمر فقد فكأنكم بفصيحته قضاء وبساطه قد انطوى وتهروا مقاصدكم على الإطلاق واعتكفوا فيه على صيام النهار وقيام الليل وشمروا لذلك عن ساق الجد الذيل فإنها أنفع ما يجده المرء بالآجلة وخصوصا في الأزمنة الفاضلة اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلاة ترضيك وترضى بها عنا الحمد لله الذي عظم فضله وعم منه النوال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وجميع ما له من الأصحاب والآل أما بعد فيا عباد الله قال الله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الآخرة من نصيب واتقوا الله عباد الله واسرعوا لأنفسكم ما تحصدون وقدموا من العمل الصالح ما تجدون يوم يندم المقصر على ما يضيع من عمره ويفوت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وهاروا أن تمر بكم الأزمنة الفاضلة ولا تعرفون قدرها فإن شهركم هذا أحد الأشهر الحرم التي العمل الصالح فيها عند الله يزكو ويعظم وكما يضاعف فيه جزاء الحسنات كذلك يضاعف فيه جزاء السيئات وأفضل الرغائب على الإطلاق هو كثرة الصلاة والتسليم على من صلى عليه الملك الخلاق جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر وإذا آنس نورا اقتبس منه ما تيسر يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين

قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah akbar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 ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وتبتنه بالهادي الوفي ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وتبتنه بالهادي الوفي ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وتبتنه بالهادي الوفي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 ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وتثبتنه بالهادي الوفي ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وتثبتنه بالهادي الوفي ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وتثبتنه بالهادي الوفي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 ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وتثبتنه بالهادي الوفي ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وتثبتنه بالهادي الوفي ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وتثبتنه بالهادي الوفي